bi xanaa war ngeen ko xàmmee c'est le hôtel de ville de Touba man hôtel de ville de Touba xam naa nag li ma siy bëgg a wax man ngeen ma xaar tuuti dugg sama oto quoi parce que Abdoulaye Ka il foutait de merde des des des euh, la population de Touba. malgré sa xalifa euh, la communauté mouridisme ñoo fi teg Abdoulaye Ka en tant que maire de Touba. c'est le minimum c'est le minimum viens regarde ici dama ñëw mairie Touba di def déclarer sama doom. sama doom tey la 14 décembre xam nga lan lañ wax le 16 janvier laa war a ñëw parce que amul carnet carnet amu fi pour déclarer sa sa doom y'a beaucoup de doo xaley tuubaa yoo xam ne amuñu ay kayitu juddu lan mooy seen problème mooy dañu am problème état civil Abdou Lahad Ka sa mairie laa ñëw tuubaa di fi def demande sama kayitu juddu doom gis nga injustice ñun la ñuy bañ ci Sénégal xam nañ ne dëkk bi ndigal rek fi am ak topp ndigalul Serigne Touba ak lu Serigne bi wax ñu def ko. mais Abdoulaat Ka mënoo nekk Touba marché bu fi génn nga dem jël sa entreprise Touba matériel dem di ko tabax état civil Touba boo amul jotam demal nga delloo sëñ Sidi moom sëñ Abdoulaat mairie bi ñu jël ku compétent ku am xam-xam mu yore mairie Touba liggéey ko quoi vraiment Touba ñun ay taalibe Serigne Touba lañ ndigal ci la ñuy wéy ci lañ tënk quoi du Dakar laa jóge di déclarer sama doom Touba la juddoo xoolal damay va vient jël autoroute à péage dem ñëwaat xam lan la ñu wax le 16 janvier maa ngi déposé tey la 14 décembre bu ñëwee le 16 janvier nga ko mën a jot. ñun xam lan lañ ay sénégalais yoo xam ne injustice la ñuy daw ci réew mi demal nga dem commune Wakam soo demee dañ dañ dañ dañ dañ numériser euh, euh, fichier fichier bi soo ñëwee léegi léegi moins de une heure de temps ñu jox la say papier nga dem sa yoon. lillahi wa rasuli dafa am ñoo xam ne Touba lañ dëkk nekk ay moodu-moodu nekk ci àll bi seen jabar yi dañ fi yebal seen rakk yi wala boog démasseurs yi nekk ci biir ngeen ko jox man am naa feneen foo ma mënoon a jaare jox ko ay nit ñu ñëw defaral ma papier yi mais du ko def xam nga lay doon Abdoulaye Ka soo talee ci maire yi Touba demal xoola dañ ne ma carnet amu fi carnet le 16 janvier lañ ma wax naa ñëw jël si waat ma jóge waat Dakar ñoo fi jël parce que carnet amul on se dit la gis nga état civil Touba liggéeyal Serigne tubaa dafa bokk ci nga fexe ba doomi tubaa yi di judd ay këyit yomb ci ñoom liggéeyal Serigne Touba loolu ci la bokk. Abdoulaat Ka lillahi wa rasuli jàppal ne di nga xëy tëdd làllal sa loxo ndeyjoo jàkkaarloog yàlla sa borom tabaaraka wa taala dem ci sëñ Sidi moom sëñ Abdoulaat ñu jox la mairie Touba sëriñ bi toog këram yaakaar ne yaa ngi liggéey toutes les fusées yi nekk ci biir mairie bi fekk li ngay liggéey tegoo ko fenn ci yoon. man fépp fu ma dem ci Sénégal bi fii taawee ci nawet bi ma xaw ko maa fi jaar def fi vidéo dugal ko ci réseaux sociaux yi la lendemain laa ñëw fekk fi ay moto pomp ñu pomp buntu maire bi yëpp ndox mi jóge fi Abdoulaye Ka un peu de respect bañ nga ko ba élection yi yow leer na la ne buñ ko doon xëccoo doo ko gañe leer na la ne yow